Toussaint di bés bu ñu jagleel chrétien yi nga xamante ni dañoo wuy ji seen boroom mu nekk occasion bu seeni mbokk yépp di fa daje ngir di leen fàttaliku ak ñaanal. tey tamit euh, euh, ñi sell bokk na tamit ñi nga xam ne jóge nañ àddina euh, ci yoon sax suba lañ koy gën a féetee waaye comme tey la férié bi ñu profité ci fête bi tey ñëw tamit ziyaar suñuy mbokk ñu nekk fii ci biir cimetière bi. samay mbokk yu bëri ñoo fi tëdd sama premièrement sama borom kër ak sama rakk ji fi ngeen ma fekk nii tam ñu bëri sax mënuma lim waaw tey seen bës la ñu ñëw di leen ziyaare si rek. dëgg dëgg métti na mais bésu tey yi moom dafa mel ni comme xëy na xol yi sax dañu xaw a giif daal. waaw ndax seen bës la tey ñu ñaanal leen rek xam ne ñun yàggoo yàgg nañ leen fekk seeg yooyu. ba tax na ki yor wàllum gestion bi daal dinay dellu ci jumtukaay yi nga xamante ni jël nañu ko ci yooyu le bërëb. Ah, c'est vrai que depuis un mois ñu ngi set setal def ko belleer pour les deux premières semaines les deux dernières semaines ñu jëgleel ko Saint-Lazare metti woon na trop mais Sénégal dafa may ay xale ay doom yoo xam ne yàlla may na leen pas-pas ci diine bi du musulman du chrétien. ñëpp nekkoon ci biir vraiment liggéey bu mucc ayib su ngeen xoolee cimetière bi léegi ngeen xool nu mu meloon dem belleer xool nu mu mel vraiment war nañu sant yàlla ca déggoo ak pas-pasu xale yi ci kaw loolu bés bii lañ doon préparé parce que néegu yàlla dañ koy faral di wax soo fa neree dugg yow ci sa bopp da nga war a set kër gi set pour ñaan bi gën a sell lii lañ doon wut mu nekk nag loo xamante ni mbokk ña tëdd daal di nañ ko rafetlu bu baax. waa gis nañ nag euh, am na bu ko changement parce que euh, amoon na ay fan gënoon na gën a compliqué waaye ci fan yi gis nañ ne am na amélioration bu bëri ci li ñu doon sàcc li ñu doon profané li ñu doon changé ak euh, miir bi ñuy defaree dalewaat cimetière bi loolu tamit ñu ngi remercier kilifa yëg ñoo xam ne ñëpp jàpp nañ ci pour mu gën a am sécurité ci biir cimetière yi. yoon yi leer na mun nga liggéey bi des na mais ba tey baax na mun nga dox tranquillement waaw amuñu benn problème dañ daan wóor ba sonn mais bi yoon moom dañu dem rek jubal mu nekk bésu fàttaliku ak tamit bésu ñaanal ñi nga xamante ni ñoo ñu jiitu ñu koy amal nag at wu jot ci cimetière chrétien yi